salaamaaleykum mbokki xarit ñu seetaan suñu émission homme politique ci Thiès Info ak euh, Thiès TV ñu ngi fi nag toog ak euh, une grande dame di responsable politique ci COFEM nekk coordinatrice bi muy Seynabou Dieng madame Ndiaye nekk coordinatrice su euh, COFEM départementale muy convergence des femmes makistes bi nga xam ne rek tey dinañu am jotaay ak moom pour mën a xool li nga xamante rek moom mooy seen taxawaay ci wàllu politique bi waaye laata ñuy démarrer rek ci li nga xam ne mooy laaj ak tontu yi dañ koy bàyyi rek mu présenté wu ak mbokki xarit ñu seetaan ci Thiès Info ak Thiès TV madame Ndiaye asalaamaaleykum. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum Omar maa ngi jégalu na ci baat bi ndax sot fan yi dama soj soj métti maa ngi nuyu ñëpp leen nuyu yéen ñi nga xamee ne yéen fi ñëw teew tey di ma laaj laaj yi may nuyu sama présidente départementale di Lalla Aïcha di yónnee nuyu eh, sama pare di Mamadou caw di nuyu ñëpp. monsieur le président de la république Macky Je suis coordinatrice de la coalition des femmes convergence des femmes pour l'émergence ici à Thiès. le mi depuis 2014 premier lancement en 2015 sous la présidence de monsieur le président de la république Je nous dans toutes les régions.

APR c'est la plus grande formation politique du Sénégal que vous ne nous Moi, formé de 2008 à 2012 4 ans nous la forgé wu ba Nous toujours Lolo, di di cet à nous continuer ko ci bir APR motax ñun mouvement bi faire un appui au président de la République pour essayer de concrétiser la vision du président de la République ndax xam président lim vision bi mu am Sénégal ñun jigéen ñi ñun jeunes yeeg ñëpp bu ci jàppee dina dem loolu moo tax ñun ñu créé ko am suñuy góor na ñuy jàppale ku ci mel ni Mamadou Thiaw nee na ma loo xew la te waxoo ma ko ma mere la. muy maire bu Tassette muy maire Tassette lu ne mu ci dugal loxoom fii bi à biir à Thiès ñu gis ko nag di ko ci remercier te xam nañ liggéey bi muy def yépp ngir jàppale monsieur le président la waaw moo tax ñun tam ñi ñu muy tettee ak monsieur ak euh, suñu national laal Lalla Aïcha moom it loxoom jógel ci ñun fu mu toll mi ñuy nemmee ko mi ngi woo foo leen toll di def kéem la kàttan pour vraiment li may wax rek rendre la vision du président concret

ndax dañu créer ay mouvement dem ci communes yi di wax ak jigéen ñi di leen sensibiliser di wax ak ñoom ndaxte il faut nga dugg ci biir nit ñi di di créer ay communauté ay comité ay comité de femmes di wax ak ñoom pour nga am li nga bëgg ndax ñun législative dañu def ay porte à porte di dugg ci kër yi xool seen soxla yi waxtaan ak jeunes yi xool lan mooy seen mbébét comme ça à l'avenir ñu mën a poser le problème xam lan mooy soxla nit ñi jigéen ñi ak yi ñi moo tax mouvement yooyu am na ci doole lool te ci lañuy yëngatu ci lañu fas yéene yëngatu ba éliraat incha allah président en 2019 au premier tour alors très bien tey euh, mbootaay yi nga xamante ni yaa ngi ànd ak ñoom moo ñu bootu sa ginnaaw euh, jigéen ñu ñu ci yan gox lañ nekk ci biir Thiès gox yi moom bari na ndax fi mu ne nii man ba may commencé Mbour 3 laa dëkkoon tey maa ngi nii quartier Sidak ba ma nekkee Mbour 3 dama fa amoon ay jigéen ñi nekkoon sama gannaaw waaye yéemu ma fa ma dem fayu fayu un fayu de nekk ak ñoom ba ñu woo ñoom tamit seen daataay parce que jigéen booy def lu baax ci biir ñoom seen biir ñoo koy waxante ba waa Medina Fall woo ma waa Medina Fall bi ma ñu wooyee ma dem fa seeti leen ñu pare si talam yi nga xamee sama goro fa la dëkk ñu woo ma te ba nga ni si avec yi ñu may woo nag mënuma mënaguma dem fépp parce que nànk-nànk laay def waa may ñu ngi may woo avec yu bare ma dem fa dem Grand Sanding daanaka mën naa ne ci Thiès yu baare fi mu taxaw na fa. ba point de presse ma mujjee def keroog penc Alinguer dañ def délégation bu mag taxaw ma dañ lay ndax ñun Macky Sall ñu yor kon pas à pas nank rek def di ak les femmes ñu kenn nag di intégrer. alors euh, très bien euh, madame Ndiaye dañuy ñëw tuuti rek euh, ci soxla parce que bu ñu xoolee yéen ay jigéen ngeen euh, Macky sal am na fu mu jëlee réew mi opposition bi ñëpp a ngi wax ni Macky Sall amul lenn loo xam ne def na ko ci biir dëkk bi euh, te yéen jigéen ñi ne ngeen ne euh, émergence bi ngeen di wax ci yéen la dooree est-ce que mun nga ñëwaat ci point yooyu. ah man de si PSE laay wax plan Sénégal émergent parce que bu ñu ko xoolee deux ans yi mu nekk fii quelques années yi mu nekk fii néew ba dee moo augmenté économie dëkk bi ndax bu ñuy xool dañ ne woon. Euh, taux de croissance bi du du yegg 6 6% pour cent te léegi ñu ngi xayma ne ñu ngi si six virgule kon nak kon ñu xalaat ne PC e bobu dafa am solo ndax euh monsieur Macky Sall mi ngi ci infrastructure yi mi ngi ci couverture maladie universelle bi mi ngi ci euh wañi na wañi na taux budget baisse baisse du euh, de l'énergie def na ko. baisse de denrées de première nécessité ci Macky Sall la amee euh, baisse du loyer ci Macky Sall amee musul am borom kër di ko sant bu baax dégg nga ñun fii à Thiès nag ñun li ñu defal mooy suñu jeunes yi nga xam ne ñu daan taxawaalu mu ubbi usine bi teg leen fi ne leen dem leen liggéey ay bii dee baa ngi nii ay jeunes Thiès la fay jël incha allah commencé na ak euh, forage bi kër Momar Sarr bi nga xam ne urgé ko bu yàggul kon nag ñu réalisation bi ñu toogee fii ba suba di ko wax.

Euh, da ngay am ay doléances yu bëri est-ce que am na ñoo xamante ne rek dina la jàppale ci wàllu euh, fonds pour nga gën a mën a rek euh, taxawu soxla askan wi parce que tamit bu ñu wax politique sociale day làmboo ci biir. waaw amaguñ amaguñu doole nag dañuy dem ak suñu doole nii rek ndaxte soxla yi jigéen ñi bari na waaye liñ ci mun as néew ndax léeg-léeg nga dëkk ay dëkkandoo ndax loolu Sénégal lañ ko fekk de même budul politique sax dangay nekk ak sa morom. sa naw la si biir koñ bi mu jékki-jékki ne la ndax amoo foofu lu ma jëndee ceeb ndax amoo lu ma jëndee ordonnance nga làmb sa kalpe loo am nga séddoo ko moom. loolu fii lañ ko fekk Sénégal kon nag boo surtout boo duggee ci politique nag day gën a raw nag ndax naan ah man de maa ngi jàppale diw kon nag war na maa mën a jàppale. waaye nag ñu ngi def seen suñu kéemtalaay kàttan ndax ñun bëgguñu politique de la main vraiment bëgguñu ko mais nag am nañ ci ñu baax ñoo xamee ne euh, comme ki ma li ma la waxoon sànq rek. Euh, genre Mamadou Thiaw yi sama président Lalla Alla ay Aïcha moom it lim mën yëpp mi ngi koy def mi ngi làmb ci poosam léeg ma am soxla ne ko ah man de am naa nangam soxla naa nangam mu ne ma waa yónnee ma waaw man tamit li ma am maa ngi koy def as néew barewul nag waaye

am na ñu bari ñoo xam bu ñu xewlee dañ may euh, Ndiaye mu euh, de passage sama xarit Faisal muy Kumba euh, bu événement ñu bari vraiment on est dans de bonnes ententes vraiment am nañ parce que xam naa ne jàmm jooju tax ñu avancer ndax loolu le président bëgg. il faut ñu am jàmm liggéey suñu biir jàppante loxo loxo pour mën a ngay am réew mi. alors Samia dafa mel tamit euh, jigéen ñi bu ñu xoolee rek euh, toujours lu ñu dem euh, bokk ci rek ci kanam la ñuy nekk ci wàllu massification ci wàllu booloo comme li nga wax jàmm ji tey li nga xamante ne rek moom mooy Thiès bëri na coow ñuy wax li nga xamante ne rek mooy parti APR. Euh, dafa mel ni loo xam ne dafa xawa a tembe ci walu massification est-ce que yéen ci activité yi ngeen di dem muy ay conférence ak yeneen yo xam ay ndaje jigéen ñi rek toujours rek di ngeen di té di sensibiliser askan wi ci li nga xam ne président di président Macky Sall mu koy def ci biir askan wi. non lool mom duñ ci tayi mom parce que c'est ça dos la dañu wax taxaw ne ñun suñu sunu parti bi APR du dess gannaaw kon nag ñun duñ ci tayi mu ko fuñu ñu mënti dem. bu yàggul rek maa ngi dem fii ci conférence bi bu fayu bi mais lu mu gàtt gàtt ci conférence bi jot naa fa dajale ay jigéen ñoo xam ne waxtaan naa ñoom bañ ne ma dinañ adhéré COFEM chaque jour ba si sama bureau man je suis comptable je suis gestionnaire sama bureau damay recevoir ay euh, chaque jour presque une vingtaine de personnes mais ku ci ñëw si sama am di jàmm damay waxtaan ak ñoom ci politique ndax dama bëgg ñu xam li mag Sall bëggal réew mi li Macky Sall naal ci réew mi bu ñu ko jàppalee. moo tax du ma ci tàyyi fu ma mënti dem marché ku ma dajeel dinaa la wax la vision du président il faut nit ñi xam ne Macky Sall jógeel pour nax ndax nit ñi dafa jóg pour liggéey te réalisation yi bu jot a def gis nañ ko wàññi boo gis na ci benn lay commencé il faut nit ñi jóg jàppale ko xam ne kii dafa bëgg avancement réew mi ñu takk ñu ñëpp suñu sër góor ñi jóg jeunes yi jóg jigéen ñi jóg ñun ñëpp ñu liggéey ndax ñu am avancement incha allah. alors euh, très bien yaa ngi wax léegi euh, en tant que gestionnaire du comptable. Mm. tey bu ñu xool bilan Macky ci li nga xamante rek mooy ci wàllu koom-koom wàllu économie ñu ngi wax euh, li nga xamante ne moom mooy PUDC ak PSE ci wàllu ay piste de production li nga xamante rek mooy àll bi ñenn dañu wax am na ay jafe-jafe yoo xamante ne ñoom ñu ngi koy dund yéen en tant que way politique ngeen nekk ci biir parti bu APR naka ngeen di gisee loolu. man li ma ciy wax mooy surtout PUDC. Mon programme la am solo le ministre ministre bi dafa ñëw exemple jël envoyé ministre ministre ñu dem village bi Sam Sam pour jël l'exemple du ministre Augustin lañ dem pour jël exemple ndax euh, réaliser réaliser également 13 km de piste là-bas à Sam jaay mu ñëw spécialement pour xol

képp ku ko ne gisuma ko nag dangaa bëggul gis waaye Macky ñu ngi def loo xamee ne ñëpp kontaan nañu vraiment. alors très bien ñu jëm ci ay élection muy élection présidentielle li nga xamante ne moom mooy euh, ubbite ci révision révision liste électorale yi euh, mu ngi door le 24 février. est-ce que tey yéen taxaw ngeen ci ay dispositions ñaax askan wi pour ñu mën a bindu ñi amul woon seeni carte mën a am yeneen carte wala ñu ko jëli woon mën a jëli ji pour rek waajal élection présidentielle yi. ñun loolu commencé nañ ko bu yàgg ndax bu législative yi commencé ba léegi ñun toogu tooguñu de tooguñu di xaar naan dañuy préparer présidentiel ci législative législative lañu commencé préparer présidentiel ndax bëgguñu dara raw ñu ñu ngi sensibiliser nit ñi boobu ba léegi ci affaire carte d'identité bañ leen ko ba nga xamee ne ñun dañ daan jóg sax dem di xoolal nit ñi personnellement ñi nga xamee ne am na ñoo xam ne dañoo tayal dañuy jóg naan waaw waaw naa xool di xooli ñun ñu am suñu comité yoo xamee ne ay jeunes yoo xamee ne dañ leen teg fii pour ñuy dem di xoolal nit ñi seen carte d'identité dama dama naan dem ci avec yi mu demee ci avec yi damay wax kat boo amul carte d'identité nga wax ma ba jël sama liste jox jeunes yi dem xool noonu lañ koy defee boobu ba léegi bàyyiwuñu boobu ba léegi bàyyiwuñu ñu ngi ci te dañ koy continuer incha allah. alors euh, tey bu ñuy xool rek li nga xamante ne moom mooy Thiès euh, ki fi nekk mooy Idrissa Seck. Mm. également mu ngi jóg am euh, beneen taxawaay ci biir Sénégal di def ay tournées est-ce que loolu tiitalu leen benn yoon. tiital non vraiment tiitalu bi nag ndax idi bu demee ci village yi dem ci région yi lu mu fa wax rek day day day mel ni ku nelaw ba ba jékki-jékki ticc nelaw ndaxte nee naa la li réalisation euh, monsieur le président ci dëkk yooyu dafa leer dañ cee teg seen bët ndax ko amul woon ndox ñu indi la ndox ngay naan di sangu nga nekkoon si lëndëm bi di utiliser sondeel ñu indil la électricité kooku ma def naa ne Idrissa Seck day doxantu rek mën daal doxantu laa ko tuddee ndax fépp fu mu dem amaana dina la tàccu de ndax fii ñun ñun Sénégal dañoo am yëg-yëg ci nit dina la tàccu dina la topp waaye ñoom seen bopp xam nañ kan mooy monsieur le président xam nañ fi mu leen jógee fa mu leen jëlee ak fa mu leen yóbbu ñoom xam nañ ko.

fa nga am jafe-jafe bo da ngay nangou beneen yoon do fa am jafe-jafe ba nga xamé da ngay jël say mesures ba nga xamé né bo ñëwaaté di liggéey di nga ah man kat li ma daloon fi du ma dalaat je vais prendre des mesures pour xol ba xam lan moma ma teqateer bu ci côté social bi lañu xam budé ci côté information ñu xam côté ban la mënti doon ba nga xamé ne fii lañ daanu mesures yëpp jël nañ ko ñing ci ciy liggéey nank-nank ak ak les femmes parce que man vraiment man dama privilégier femme yi.

en 2016 dañu dem stade Marius Ndiaye ñu organiser fa benn benn journée boo xamee ne femme leadership et développement lañu koy wax ndax ñu suñu gox yi dafa am yoo xamee ne ndax ñu ne nañu femme bépp femme kuy jaay gerte caaf sax entrepreneur nga femme yi jaay gerte caaf ñuy jaay solom ñii jaay màdd xeebuñu kenn ñëpp lañ ci regroupé pour liggéey ak ñoom ba nga xamee ne. léegi am nañu banque boo xamee une banque de la place bo xamé né mo ñu soutenir ci femmes yenn financement ñu ne koy défal ñu liggéey di rembourser pour le moment on a fait un essai d'une année avec les femmes nga xamé né bu ñu xolé né rembourser nañu normalement après deuxième année ñu augmenter li leen walon comme ça ñuy def petit à petit ba yegg yenn somme mais daal ñu ci depuis Dakar da ko commencer ñi ngi nii Thiès nag

bu tëddee war xelam war na dal ndax ñun suñu xol lañ ko bëgg monsieur le président dañ ko bëgg suñu xol ñun liggéeyuñu pour ne mën nañ ci am dërëm bii wala lii man bañ naa ko ba fu may dem ci mouvement yi dama leen ne bu leen ma toppee ak xaalis ndax toppee mooy monsieur toppee wuñu si le président xaalis mais vision bi am Sénégal moo tax ñu topp ko ba bëgg nañu aj ànd xàccendoo dóorandoo luñ ci fekk muy noonu muy bénéfice mais bu ñu jiital xaalis nañu liggéey ba pare ndax boo liggéeyee yàlla suñu borom bi ku liggéey mu fay la loolu daal la ñuy gëmloo femmes nañu ànd liggéey pour su Sénégal suñu Sénégal la. alors euh, ci leneen li tey bu ñuy xool li nga xamante ne rek mooy COFEM bànqaas la boo xam ne dafa jóg pour dooleel euh, Macky Sall euh, mais tey ci biir Thiès est-ce que kilifa diine yi ak rek kilifa aada yi nga xam ne taxawee nañ ko tey. COFEM yeen gis ngeen ni su ngeen ak ñoom di ngeen am li nga xamante rek moom parce que dañuy gis ni am kilifa yu bëri yoo xam dañu nekk ci ak mais dañuy ne yenn ki yenn responsable politique bu ñu ñëwee dañu am barrière seen diggante. Eh, loolu vraiment ndax ñun kilifa diine yi dañ leen di seeti sax ñun. dañ leen di seeti ba dañuy seeti kilifa diine ndax ne dem bàyyi seen ñaan dafa am solo. il faut ñuy dem si ñoom di taataan ay ñaan di taataan ay xel ñu ñuy xelal diñ teg ci yoon ndax ñun ay jullit lañu ay jullit lañu kon nag dañuy war a jege kilifa diine yi te jege aussi kilifa aada yi ñuy wax ndax ñoo xamee ne door bi ñu dooree yàggul ñoom ñoo ñu mën doole ñaan di wax ak ñun duñu wax ne ñuy teg leen fii seen tànk ñu mën a fete suñu tànk te boobu ba léegi bi ñuy nekk ñoom avancement dañ ci gis. kon nag kilifa diine yi ñoom vraiment ñun dem def dara bàyyi leen ci. alors très bu yàggul dara gis nañ fi crise bi nga xamante ne enseignants yi def nañu ab marche. Euh, bi nga xam ne enseignant wu Sénégal yëpp cees lañ defee marche bi di wane seen nakar ci li nga xamante rek mooy groupe euh, Macky Sall ci ay points yi nga xam ne moom la euh, syndicat yi xaatu xaatimoon ak li nga xam ne rek moom mooy état bi ci wàllu li nga xamante rek mooy yokkute ak seen kaaraange ci li nga xam ne mooy seen liggéey ñu ni mel naka bi moom li ma ciy wax mooy ñoom dañoo am ay xale ci école yi Macky Sall la nekk seen njiit may wax euh, monsieur le président moom it lépp loo mën ci satisfaire doléance euh, enseignant yi mu ci mën nag laa wax na ko jéem a def. enseignant yi tamit ñoom ñu wàññi tuuti seen tempérament ñoom fekk si président tuuti moom tamit ndax dafa métti de ndax xam naa ne euh, am na yoo xamee seen droit la dañ leen ko war a jox mais ne comme dëkk bi métti na te président loxoom mi ngi fépp ñoom it nañu fexe. ànd ak président toog waxtaan ak moom ñu fekkante ñoom ñu wàññi tuuti seen xadar xool ni ñuy comme am tuuti compréhension ci monsieur le président monsieur le président def fekk si leen tuuti ci ci li nga xamee ne seen doléance li mu ci mën mu fajal leen ko ndax xam naa ne seen droit lañ nekk loolu daal laa ci amoon lu muy wax. alors euh, très bien li nga xamante ne wax nga ko muy élection présidentielle yéen euh, ci législative yi ba léegi. Euh, toogu leen yéen a ngi koy waajal. Euh, pour rek mën a jox euh, président a Sall ndam ci 2019 bii ngeen jëm euh, tey est-ce que am na li nga xamante ne rek mooy ci wàllu mouvement parce que tey yaa ngi ci quartier bu bees muy SIDAC est-ce que yaa ngi préparé jigéen ñi fi nekk rek pour mën a ànd ak ñoom pour dooleel le président Macky Sall. Hmm, maa ngi koy préparé nag mais xam nga politique moom doo ñëw rek asalaamaaleykum rek et kaay dugg ci politique bi ah. système la waaw parce que bu même boo nekk ay nit sax. man dèjà man bi may dugg ci politique nee naa man mën naa ne presque woo ma kenn bi may commencé mais voisinage bi ngay nekk ak ñoom nekk ak say am di jàmm ku ci am xew nga taxawu ko ku ci am soxla yenn saa yi boo mënee nga taxawu loolu boo ko defee boo yëkkatee mouvement ñëpp daw wis yi la d'abord nee naa maa ngi wax politicien bu ci muntu nekk nanga nga fexe sa gox bi nga nekk nga am ak ñëpp jàmm yëg ñëpp ba ne kenn ku ko def loo woote ñu wuy si la. ndaxte xam nañ ne woowuñu leen ci lu bon fii nag quartier bi ma soog a dëkk quartier bees la dem naa nuyoo nag sama ay dëkkandoo waxtaan ak ñoom xamal naa si ñenn ñi ne maa ngi ci politique bi maa ngi convergence des femmes Macky pour l'émergence maa ngi waxtaan ak ñoom nag ci vision président waaye nag li ñuy wax nànk euh, nànk nànk moo jàpp la ci ñaay ci laa nekk phase boobu laa nekk nii. alors euh, très bien madame Ndiaye est-ce que tey am nga ay ambition nekk maire Euh, yaa ngi liggéey ci COFEM mu nekk ab entité bu nekk ci biir euh, APR est-ce que tey sa ambition politique jox na la tey nga nekk euh, say ambition pour nekk maire wu Thiès wala maire wu commune Thiès ah bien sûr bien sûr bëgg naa ko bu mu ne nekk ma nekk de toute façon man li may wax ne on ne fait pas de la politicienne ñun sommes politique dañ ko def vraiment pour épauler le monsieur le président pour le président de la république luñ ci fekk nag muy noonu. ñu loolu si mooy seen dañuy liggéey ak président jàppale ko surtout ci surtout à Thiès bi Thiès moom nee naa ñun ñun femmes yi ñun jeunes yi. nañ def suñu kéemtalaay kàttan ba nga xam ne monsieur le président ndax nag nit ki nag gor rek lay doon mënu laa fekk sa dëkk defal la lu ne reng ñëpp di ko gis li nga bëgg yëpp mu defal ko élection ñëw nga di ko war mënu nekk il faut ñu won président rek li nga def Thiès gis nañ ko man na damay liggéey rek. jàppale président ndax kontaan naa ci moom samay morom kontaan nañ ci moom lu ñu ci fekk nag mu noonu. waaw kàddu yu mujj yi émission bi jeex na. waaw daal vraiment di sant ñëpp di gërëm ñëpp di di wootaat ñëpp ñu leen jóg mouvement xam ne liggéey bi door na xaar ba mu des fan ñu soog na li liggéey nañu jóg dugg si xol yi bi dugg si gox-gox yi jéem waxtaan nit ñi nga am na ñoo xam ne dañoo xamul. am na yoo xam ne bu ñu xamoon kuy Macky Sall xam li mu def xëy na ñuy dugg mais xamuñu ñenn ñi mënuñu liir ni ay alafay bët lañu ñenn ñi xamuñu léegi nag il faut ñun ñi nga xamee ne ñoo ñoo nekk ci pour gox bi dugg ci ñoom di wax ak ñu xam kan mooy ñu xam la vision du président de la république pour ñu may dugg ndax xalaat naa ne kër goo dugg wala gox goo dugg waxtaan ak ñoom ngeen dugg nañu commencé nag may remercier nag sama présidente Lalla Aïcha moom bi nga xamee ne ménagé bu vraiment aucun effort pour jàppale ma jàppale ñëpp nag mais remercier également monsieur le maire Maodo Thiaw mi nga xamee ne du ma noppal di ko wax ñii liggéeyal moom tey monsieur le président ma nga ba taseet waaye loxoom du génn Thiès li mu mën lépp mi ngi koy def ma may leen remercier ñii waa Thiès Info di remercier samay militante di remercier sama njaboot remercier vraiment ñëpp merci beaucoup. voilà mbokki xarit ñu émission en politique nous euh, madame euh, Ndiaye di Seine coordonnatrice départementale bu gouvernement des femmes maquistes pour l'émergence di COFEM di jox dig numéro